amati mbégte dalal koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci kër gi mën naa ni kër gi tey fondation la ci kër gi tey monument la ci vraiment tete xale yi lépp loo xam ne xale yi soxla nañ ko lu jëm ci moom rek dara ñu ñëw leen bu leen xalaat fi seen kër la ñu koy nuyu baax a baax mu di Ndiaye Rambo ak ñu fekk fii yëpp ak waa gi frère am yëpp vraiment ñu doon ñu disponible ci suñu tey moom lañu dalal fii fa seen waxtaan ak moom tolluwaay jamono Ndiaye dañ lay bàyyi nga nuyoo du ma ne People 221 mais sa kër waa mais siyaar ak màggal people deux cent vingt waaw wax na dëgg sama kër te sama kër këru ñu bari la hmm, di leen siyaare waat di leen màggal di la siyaare yow ah mhm. di siyaare caméraman yi hmm, di nuyu sama yaay hmm. di nuyu sëñ Cissé mu sëñ Babacar Si ku baax ku baax mhm. waaw euh, njaay nuyoo bi rafet na ñuy ngi nuyu sëñ Cissé mu sëñ Babacar mhm. euh, fi may njëkkee Ndiaye waali gars namoon ko Waly ñëwaat. Mhm. def retour boo xam ne dafa am doole macha allah. Mhm. ndaxa nga jàngatee retour Waly bi. waaw comme ni ko xam nga am na loo xam ne defe naa ni man abaa ma cee tontu sax daanaka wax nga ko tontu nga. Mhm. ndax xam nga Waly Seck. Waly Seck Sénégal la. Hmm? bu fekkee yàlla dafa dogal mu toogoon ay jours wala ay semaine yu mu jéewul. kon bu retour am dina noonu noonu rek la mën a del mhm. demee xam nga xam nga mhm. Sénégal moom comme que danoon namoon Wally mhm. Wally ñëw def yaa ma gën a xam mais ñu gis ni Wally léegi ci ay programme dafa mel ni international bi la gën a favorise la gën a favoriser que Sénégal no mm, no pas international bi la gën a favoriser parce que Wally lu mu doon Sénégal lay la te lu muy doon it Sénégal lay doon mm, Wally Wally Wally mënta am lu gën Sénégal dafa fekk ni métier mi muy def. da ciy baax rek tuuti des fois nga jékki-jékki mel ni ku bëgg a def leneen. loolu la ci jublu. mais Wally moom lu mu am Sénégal ko gënal mais internationale bi tamit ñu ngi ci. di ci bay suñu waar macha allah. waaw. mais mais mais mais Ndiaye nag xale yi tamit Wally dañ ko tàmmaloon. waal dañu tàmmaloon même pas vogue bi mais chaque chaque chaque mën naa ne chaque 3 mois wala chaque 4 mois mooy ñu benn plénière xale dañu moon loolu te léegi mënuñu ko gis ci waale. waaw waaw waaw loolu yëpp nag xam nga li ma la expliqué rek xam nga nag Covid bi dafay jaar. Mhm. yu bari jaar fi mhm. te xam nga waale événement am dafa xaw a dafa xaw a préclose yi. Mhm. capitaux parce que événement am ni ko nit ñi di waajee ak nit ñi ni ci kii moom tamit da ciy sóoraale ay soppeem. da ciy sóoraale ay soppeem parce que ku ne xam na léegi Sénégal. xam nga dafa dafa xaw a metti ci ñenn ñi. Mhm. comprendre nga. Mhm. léegi nag moom moo waral waale di may distance. Mhm. yenn yenn yenn kii mais incha allahu rabi léegi rek dinañ def benn affaire bu mag bu soobee mais ñu xool ñu gis ni waale presque gëj na joué Sénégal. maanaam ci plein wala concert. Euh, mu mu du ma ni mu réussir mais mais mu àgg. boo xoolee ci am yëpp après day am ay empêchement te ñu gis ni bu génnee dem feneen euh, programme yu mu ba ci Mourtani j'espère que Maroc. bii passé mais Sénégal day jàpp date doo comprendre quoi. déet doo comprendre mooy lan xam nga nag nit mën na jàpp dat nit mën na bëgg dara mais luy mat luy sotti yàlla suñu borom ma koy matal. Mhm. Mhm. parce que fii defe naa benn événement rek lan fi programmé. te defuñu ko. Mhm. te loolu ku ne xam na ni lool du waali. du ma sàmba du ma demba. suñu borom moom moom tawam. ah moo xam nu mu koy tawee moo xam fi mu koy tawee moo xam jour bi mu koy tawee. Hmm. loolu rek la mais programme bi mu ngi ñëwaat incha allahu rabbi. d' kon damay jógee ci waale tuuti ñëw ci li nga xamante ni fan yi gis nañ la nga génn euh, doon ci doon doon doon doon ci kaas mu doon loo xam ne métti na ñëpp aussi. Hmm. muy kii di Mola Morgan. Hmm. génnoon doon attaqué Viviane. di ko wax ay kàddu yu xaw a ñaaw. moo kii di Zeyna sama jigéen ma koy nuyu bu baax a baax. nga génn di di di di ci wax naka nga jàngatee loolu. waaw boo gisee ma ciy wax nag xam nga man. xamuma Viviane xamuma doomam Zeyna. xamuma ki nga xamante ni mooy Mollah Morgun. mais Mollah Morgun dafa nekk sénégalais. ñi muy waxal nekk ay sénégalais mu nekk moom ku ñàkk kersa. Mollah Morgun dafa reew dafa reew te Mollah Morgun dama xool xool xam naa ni am na lu manqué ci moom. parce que xam nga Mame Boye Diao mi muy jël di teg deram. naan def na léeg Viviane def na léeg doomu Viviane Mame Boye Diao dafa am soxna. Viviane ñaan na yàlla am boroom kër. ah Zeyna ñaan na yàlla am boroom kër. Mm-hmm. léegi ñooñu ñëpp moom nan la leen def. Mm-hmm. chaque jour mu leen di xaas di yëkkati kàddu gu ñaaw di ko teg seen der. te man nag wax dëgg yàlla man dëgg laa faral. dëgg laa faral. man noonu la ma yàlla bindee man injustice bugguma ko. comprendre nga. looloo waral man tam ma ciy def sama sorti di wax. pour ñi nga xamante ni ñu ngi may déglu ñenn ñi mën maa dégg parce que Mollah Morgun day defar. mais day yàq te li muy yàq ëpp. Mhm. te xam nga defar boo xamante ni yàq ko ëpp. Mhm. bu yàggee sa defar du bari njariñ. Mhm. parce que nekk bitim réew ku la neex fii nga saaga ko. ku la neex nga xas ko. tey boo taggee kii. suba nga xas kii. ginnaaw suba ki nga taggoon nga xas ko. loolu du yëfu gor. comprendre nga. looloo waral man tamit may def sama solidarité ci ci ci ci ci ci ci ñoom Viviane mais du dama leen a miin wala ma xam leen. d'accord mhm. waaw. d'accord mais mais foofu tamit est-ce que état amu fa part de responsabilité parce que tey da gis ni benn doomu sénégalais day nekk Sénégal yaru. Mhm. mais ñu gis ni bu génnee dem bitim réew rek day xool kilifa yi kilifa bu ko neex mu saako quoi da du ci am benn jafe-jafe. mais mais mais mais mooy li ma la expliquer rek ñoom ñëpp ci jafe-jafe la mujj. Mhm. te même bu fekkee état. jubluwu ci mhm. yàlla suñu borom dina ci jublu. Mhm. parce que yàlla bëggul kuy toroxal doomu aadama. Mhm. te Sénégal fii genn wàll gépp loolu la ñuy dundee. comprendre nga. genn wàll gépp dañuy dañuy nekk senegal di ko teg ci yoon bu ñu demee Europe. di saaga. di xaste di di di toroxal ay gor. yooyu ay détails la yoo xam ne dafa ñaaw benn peeru ñaaw boo xam ne da ngay dem ba da ruus sax. yow ne sénégalais nga. ndax léegi li xew léegi ci réseaux sociaux yi. yàlla xam na ko. d' accord su ma génnee ci kaw Viviane ma ñëw fan yi li nga xamante ni euh, xawoon na fi xew du ma ne bambaali mais dama naan njabootu Faramaren. Mhm. parce que bu ñu nee Faramaren mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp lu lépp lu sant sekk ak la ci biir. Mhm. am lu leen xawoon daal mu di kaw bambaali naka nga jàngatee loolu noonu. kaw Bambali mooy mooy mook soxna si waaw xam nga boobu nag waxoon naa ci te li ma ci waxoon rek xam naa moom laay waxaat mhm. man du ma ni moo jur wala jurul mhm. mais bu fekkee mës na sëkk ak soxna si dara te jàpp ni doom ji doomam la na dem ndax doom daa neex mhm. ndax sëy nit sëy na dix ans amul doom nit dund na ba génn àdduna amul tuut tànk te doom ku ne xam ne daa neex rawatina nag doom ji di doom bu jigéen waaye nag xale bu jigéen bi tamit dinaa ko conseiller parce que mhm. xam naa ko. Mhm. Hmm? xam naa ko boo ko déggee mooy maa ngi koy gis. Mhm. Hmm? pas damaa xam turam wala ñu miinante mais yàgg naa koo gis. Hmm? à travers ci milieu bi nga xam ci lay nekk. Mhm. comme ni may gisee ñeneen jigéen ñëpp. Mhm. man nag du ma wax ni moom dafa oyof sër wala oyoful sër wax yooyu ñuy dugg man du ma ci dugg. Mhm. mais daal bëgg naa moom it mu góorgóorlu gën a suturaal boppam. parce que am na wax yoo xam boo koy wax yaa ngi xeeblu sa bopp. noonu la demee. ma ñëw ci li nga xamante ni tout récemment xew na fi barki démb bu kii di Amath Thiou parce que li may wax lépp génnul sa njaboot Amath Thiou génn euh, doon ki nga xamante ni mooy Kéba. que lépp fi a fekk keebaa bi ko coon di jox micro fi la ma fekk. Mhm. pourquoi man ma dem soirée am war ma jox ma woy di ma xaarloo ba comme genre ku may humilier daal naka nga jàngatee wax jooju. waaw am na ci na ci famille bi léegi kenn mënu ko dindi. Mhm. ah damaa gis ni ñoom seen biir nan ko rafetal rek. Mhm. parce que man. parce que man ñemew ma. am na ci wax keebaa dara. man ma ciy dugg. Mhm. parce que ñoom ñëw ko sëkk. Mhm. si ñoom daal la. Mhm. comprendre nga. ñoom xam naa ñoom dinañ xam ni ñuy seen bopp ji nax parce que Kéba am na droit dem soirée Amethou Amethou. am na droit dem soirée Kéba. Kéba it am na droit jël. micro bi jox a Thiou ndax xam na ne Ameth Thiou ci loolu lay yëngu te Ameth Thiou pilis la ci moom. Mhm. bu fekkee joxu ko micro bi nag parce que seetaanuma loolu xaw ma ban contexte la. Mhm. mën nax parce que tamit xam nga way waykat di nga ko fekk foo xamante ni. Mhm. yow artiste bi waroo yéegee foofu. Uh-huh. wala boo yéegee foofu moom instant boobu du la mën a jox micro bi ci moment boobu noonu. parce que nag artiste yow bu fekkee en tant que artiste dafa am fenn foo xam ni boof. fa lay yenoo maanaa. bu fecc kat fecckat boo koy siif dafa am noo koy siifee. Mhm. comprendre nga. Mhm. même kat buy tëgg yow fecckat bi boo nee bërit am na noo naan bërit du la tëggal. Mhm. comprendre nga mën na am genre problème yooyu la rek mais du affaire bu gara parce que jàpp ma ni Ameth Thiou fi mu dem waru fa dem. jàpp ma ni Kéba dina def yoolu Ameth Thiou dama jàpp ni peut-être mal entendu la. fi fi fi fi Ameth Thiou yéegee mën na am. fekk na Kéba di woy benn nit. extra extra loolu du affaire bu garaaw yooyu moom du du du dara daal. d'accord ma ñëw ci li nga xam ni daanaka xew na démb ak tey mu jur coow lu bari indi polémique muy kii di Don Diego euh, avant may dugg ci question yi bi nga seetaanee sorti Don Diego bi mu doon tagg démb waali tey mu ñëwaat di ko di ko di ko xaas naka nga jàngatee sorteem boobu. waaw seetaan naa tuuti nag parce que seetaanaguma euh, euh, intégralité bi ah. Don Diego. li ma ci seetaan mooy expliqué na ay détails yu bëree bëri hmm? euh, bu fekkee dafa xaswaali jàpp ma ni doon jéego woon na xaswaali et puis est-ce que xas la hmm? dama jàpp ni peut-être point de vue am la wax ah lim jàpp ni looloo am la wax mais man jàpp ma ni sax xas la parce que doon jéego moom ku ne mën na xaswaali ba mu des moom mhm. lu tax waaw parce que fekkee nan nag ah? mhm. xam nga doon jéego seetaan naa mu ni Wally dafa war a bàyyi ngistal waaw. dem na ba tudd ci bàjjen mi Wally may oto. Mhm. xam nga bàjjen bi muy ñaan Wally oto est-ce que privé la ko ñaan wala publiquement. Mhm. ci concert la yéeg ñaan Wally. Mhm. Wally may ko oto. xam nga ay mbiru waali moo demee noo xamante ni waali même bu sekkee yow dërëm sax bu ko mm-hmm. waxul yow nga wax ko mm-hmm. bu ko génneewul keneen génnee ko mm-hmm. waali li muy def te kenn yëg ko sama diggante ak alxuraan moo ëpp li muy def nit ñi di ko yëg doon jeego waali mës na ko may oto kan moo ko yëgoon kenn est-ce que waali mës na yëy yàbb ci non non doon jeego day sëkk waali xaalis ba ci ay tëbaskeeg ay détail détail wax na ko waaw. léegi xam nga wax na loolu est ce que moom bu ko wax loolu di ngeen ko xam. non non léegi loolu ana ngistal bi. Hmm. foofu damay laajte. Hmm. man waale bu ma defee loolu lu baax man aw ma droit wax ko man. Hmm. mais et lu baax sax dañ koy wane seex bi. lu ñuy nëbb ci lu baax. ay affaire yu sal yooyu ñuy wax taxawul waale doxul ci détail yu ñàkk fulo yooyu yàlla xam na ko. parce que ci biir wax ji mu ngi naan am na lu ñu am na lu ñu waxante woon defu ko kon est-ce que jàppoo ni booy yi des fois dañu xaw a dëgër la rek génn di yàq ko di di xaw a. waaw mais nag xam nga nag waali ku ko jàppee loolu bu yeboo nga xam ni yàgg waali du ngeen ànd. Hmm. ndax waali Mm-hmm. ñu koy solliciter ay mbir. Mm-hmm. kenn xamul nu ñu toll ci réew mi. Mm-hmm. lim ci mën lay def lim ci mënul da koy bàyyi yàlla parce que yàlla mi mën lépp sax deful lépp. bu fekkee Wally da koo wax dara defu ko te daan ko wax dara du ko def di ko def. mu war a jàpp yam ko daan wax di ko def. mais lim ko wax te defu ko defe naa ne warul am solo. parce que lim ko wax def ko moo ëpp solo. lim ko waxta defu ko. comprendre nga te fii ñëppay waxta duñ def loolu garaawul. Ah? waal yi doon jéego frère am la. ñu gis ni sax euh, xaw na ci attaqué yéen mu ni ñi nga xam ne ñoo ko jege duñ ko wax dëgg bala ñu ko wax dëgg rek il fallait que mu jox leen xaalis man li may am li may wax nii kenn amul fit wax ko. waxul dëgg loolu du dëgg boo ko boo boo boo ko dékkaatee micro nga ne ko Ndiaye Rambo nag nga jaar sama tur. Mhm. lii mu wax ci micro la ko waxee ñun li ñuy wax Wally liñ sëkk ak moom duñ toog ci ay micro di ko wax. mais dëgg moom. doon jéego ñoo ko gën a ñeme ñaar fukki junnoon parce que yàlla dogal na ñoo ko gën a jege Wally. te moom dese naa xam Wally. man xam naa ni dese na koo xam ndéem nag jom ñaar dund nañ. parce Don Diego ku ne xam na ni yàgg na yàgg na incarné di teg ay kilibu waali mm-hmm. extra extra mais bu waali xam nga nga teg ko nga ñàkk koo teg day tegu mm-hmm. loolu la demee mm-hmm. parce que nag liggéey na ko comprendre nga mais Kanta ñi muy àndal duñ ko wax dëgg loolu moom doon Diego waxu ci dëgg tey ci man man amul lu ma rus a wax waali amul lu ma ragal a ci àdduna mais nag est que nag man damaa war a wax waali dëgg toog ci toog ci micro di ko toog ci écran bi di ko wax c'est pas comme ça àdduna doxewul noonu. Mhm. doon jéego am na ak sa gis waali bu mhm. fekkee bëgg na wax waali dëgg. Mhm. day taxaw waali wax ko dëgg. loolu moo gën a rafet. nga dem ci site internet. naan da nga koy wax dëgg naan day ngistal naan extra extra yow nit ñi sax dañ lay xeeb. deful te yàlla parce que yow expliqué nga. expliqué nga. ba ni waali may na la oto. ba ni tabaski bii passé yónnee na la say business. léegi nga retourné na day ngistal te yow lim la yónnee. yaa ko waxee. lu tax waali. ko. waali waxu ko. kon wax yooyu noonu du wax yu rafet. Mhm. comprendre nga am na diggante yoo xam ne lu fa xajul rek xaju fa. Mhm. comprendre nga. Mhm. parce que nag man bëgguma kuy dàq ginaar di waxaale su soxla loolu baaxul. boo jàkkaarloog nit ki mel ni xarum yar. bu la micro yi ngay évoquer ay détails yoo xamante ni. yooyu yooyu baaxul yooyu baaxul. mais est-ce que jàppoon ni li Assane Ndiaye ñëw ci soirée bi waale may ko xaalis noonu devant public moo xaw a indi bi. waaw mais loolu lan la kan la ko may. baayam la ko may. Mhm. ñaata yoon ngeen gis yi di jox yaayam. Mhm. ñu gone ko ci internet bi. waa <laughs> la <laughs> waaw mais oh, oh perkatu fay yi luy loolu. yooyu day dara. Mhm. danoo daje ci bërëb. ñuy sargal Baye di sargal magu Assane magu Assane Assane yéeg ci kaw seen bi di woy ay woyu Baye Wally. di woy ay woyu magam. waaw mais mais oh waaw mais bët bu rusul toj. waali du ko may waay waali bu mënoon sumbi ay yërëm yëpp da koy jox. Mhm. loolu mooy ngistal. Mhm. waa mais kon ngistal neex na ah. mhm, waali ñaata yoon lay dajeeg Papa Thione di ko jox xaalis nit di ko filmé. waali ki koy filmé. est-ce que waalee ko wax filmé ko. moo waali ku ne xam na ni waali heure bu génnee téléphone tàq. léegi télé yi ci poos la ne. daa mel ni Sonko. waaw kañ. comprendre nga. Mm-hmm. mu ngi mel ni mu ngi mel mu ngi mel ni mu ngi mel ni keneen ak keneen. Mm-hmm. bu ñu génnee seen téléphone da ngay gis seen téléphone par force. Eh, Wally Seck fi mu toogoon noonu. Mm-hmm. ci galaaw bu toll noonu. Wally Seck mën na fa def lu umpe. Wally Seck fi mu toog sax jàpp njàmburam. di naan kafeem sax boo xoolee ci réseaux da koy gis. noonu la noonu noonu dayoo boobu la ko yàlla may. Mhm. loolu bu ko nit ñi tuddee ay ngistal ak ay détails yu ñàkk fu yooyu. parce que moom dafa jàpp ni Wally dafa bëgg a euh, tontu ki nga xamante ni mooy Kéba Seck ci li mu waxoon ni xale yi amuñu kilifa moom doon waxi doon jéego laay wax moo tax mu bëgg a def loolu pour Assane Ndiaye moo tax mu def loolu pour Assane Ndiaye. waaw ma xam nga non man waxu ay am na kilifa amuñu kilifa man yooyu bëgguma ci acharné wu parce que papay Wally moo wax loolu Wally loolu ki ko wax moom la engagé ki mu ko wax moom la engagé. parce que papa papa moo ko wax doom loolu garaawul. waali du tontoo doonu. waali bu demee bay tontu defe naa neneen lay tontoo. mais du tontoo ay affaire yu weccet ak ay ay yéeg ci kaw. seen may may mais waali bu maye Assane Ndiaye bu ko mayul kan lay may. Mm-hmm. bu mayul Kéba kan lay may. Mm-hmm. bu mayul diw kan lay may. Mm-hmm. waali ku ne xam ne ñëpp lay may waali li ko te doon multi multi multi milliardaire loolu la joxe. sama digganteeg alxuraan. ñimeewu ma waat ñimeewu waat ne waalee daq joxe ci Sénégal ñimeewu ma ko de. mais bokk na ci ñi dàq joxe ci Sénégal fii ma xam leen barke Muhammadu Rasulullah billaahi barke Sëriñ Babacar Si. Eh, man waali moomu sama digganteeg alxuraan man duma wax lu ma xamul ci waal yi. Mhm. te nag bokk naa ci ñi ko xamaa man. Mhm. yàlla xam na ko yonent bi. Mhm. bokk naa ci ñi ko xam. am na li ñuy wax yu bari yoo xamante ni sama digganteeg alxuraan waal li mu doon def bu buñ ko doon filmé. lépp kenn mënu ko wax sax. dëgg la mais kon da jàpp ni doon jéego euh, li li li mu waal waali waali du ma ni da ko rejeté mais waali dafa ko ko moo tax mu génn di xaawi suturaam. déedéet du loolu laa jàpp. moom sutura boppam lay xaawi mënul xaawi sutura waali man dama mm-hmm. jàpp ni doon Diego bu waxee waali dara defu ko. Mm-hmm. daal na ko wax di ko def. Mm-hmm. point. doon Diego ci loolu la waroon sukkandiku ba sotteem bi yenn yi du ko jar. kon na jàpp ni dafa juum. du ma wax dafa juum. du ma wax dafa juum. jàpp naa ne daal Don Diego. wax na waxam. mais li mu wax am na lu ci am am na loo xamante ni amu ci. lan nga jàpp ne li mu wax moo ci am wuyul. waaw moom laa leen noonu garawul garawul bëgguma wuyu gi xam nga Don Diego li mu wax moom lay engagé parce que bu ne Wally digg na ma defu ko mais daan na ko dig di ko def looloo li ci am. te Wally nee naa la sànq yàlla mi nga xamante ni moo matale mën lépp sax deful lépp. comprendre nga. Mhm. Wally ñi koy sollicité ci kaw suuf Wally li nekk ci boppam bii. Mhm. doon jéego nee naa la. Mhm. doon jéego man li ma daj ci Wally. un quart ba. daju ko ci Wally te Wally may na ko oto. te aw ma ci xanaa loolu rek moom waroon na mën a tax moom mu toog noppi. parce que mu ngi naan moom jàpp na ci carrière Wally tey Wally bu amee indépendance bu amee liberté 2STV grâce à lui parce que moo ñëw imposé ko waa 2STV. waaw loolu yëpp mën na nekk. mais Wally imposé ko dina imposé wu ñàkk koo imposé dina imposé wu. parce que mhm. loolu la yàlla dogal. Mhm. Wally moom daal liggéey loo xamante ni. Mhm. amul benn télé bu koy bañ a teg. per forcé danga koy teg. mais est-ce que tamit moom li mu wax moom moo am accès pour wax loolu Wally. waa léegi déggoo ma de bu amee non mais mais pas ci réseaux sociaux. am na accès dem kër Wally. day dem jàkkaarloog Wally. wax ko li ko metti mais amul droit ne mel ni kuy def wili pande. parce que nee naa la man li ma daj ci wàlli yi un ba doon jéego daju ko ci wàll laa wax. un quart ba. doon jéego daju ko ci wàll mhm. mhm. sek. Mhm. te moom am na ci lu ma amut. ku war a kaas moom wala man. yow est que man kaas naa. est-ce que man damay ànd ak nit ki ndax privilège. est-ce que damay ànd ak nit ki ndax succès. est-ce que damay ànd ak nit ndax oto bu ma war a jox. Uh-huh. non du noonu man jàpp ma ni nit da ànd ak nit ndax xaalis. wala ngay ànd ak nit ndax succès man jàpp ma lool quoi. yaa jàpp ma loolu man dama jàpp ni nit booy ànd moom da ngay ànd ak moom te yàlla tax. lu mhm. la fa fekk nga jël ko. Mhm. li ma daj un ba daju ko ci waali. un quart ba. daju ko ci waali. Mhm. te moom waali may na ko cooto. waaw. kon daal da jàpp ni bu amee lum mu koy wax na ko woo entre ñoom ñaar. mu wax ko mu wax ko ko comme man dafa lay teraanga te kenn ko yëg. waaw kon bu la defalul teraanga jarul kenn du ko yëg. c'est pas méchant. d'accord ki la daan defal. am benn jour deful la nga dem ci réseaux sociaux di wax yow la ñuy sikk. Mm-hmm. yow la ñuy sikk loolu baaxul. Mm-hmm. loolu baaxul nit mm-hmm. doo tagg tey suba nga xas yooyu baaxul yooyu affaire ñàkkful la yooyu baaxul. te doon jéego kilifa la. ku nit ñi respecté ah la man boo ko respecté laa. parce que xam naa ni mu mel yaayam. ni mu meloon ak yaayam. ku bëgg yaayam la. ku defal yaayam lu ne la. ma xam ci dara. comprendre nga. waaw mais am na wax yoo xamante ni nit du ci melewu. te munoo tagg tey suba nga xas genre détail mm. yu mel noonu ça mm. mu ngi noonu tey Ndiaye Rambo lañ dalaloon fii ci sunu kër di people 221 amoon ak moom ci li nga xamante ni mooy waxtaan bu yaatu parce que euh, tey waa njaay bu waxee au nom de Wally war na cee wax parce que it fekkee nañ gis nañ kon tey bu waxee war naa taxaw wax ah, di wax gars yi nañu bàyyi di juger ci loo xamante ni leeru leen. nit booy wax da ngay wax ci moom loo xam ni euh, leer na la mënoo tagg nit tey suba nga xas ko Sénégal nag mooy doxee noonu Euh, Ndiaye tey ñu ngi may signaler li ñu ma mayoon ci waxtu jeex na tey ban message ngay lancé jeunesse bi ak boo amoon kàddu yoo xam ne di nga ko dollil ñi nekk ci millier bi mooy lan. waaw ñu bàyyi xarabante bi. ah ñu bàyyi soxor. booy yow eh booy booy jéggi del xool tali bi booy jéggi del xool tali bi chaque jour nga def loolu yéen it eh mais ñii nan lañ tudd yow mooy mooy ñiy ànd ak élèves yi. ah waaw mais non mooy xaw ma giddi yi xaw ma mais ñoom duñu wàccee xale bi jéggil ko bii mooy trois fois trois fois troisième fois heure bu ma toogee fii damay gis ñu def loolu waaye damay loolu bokkul ci émission mais ñu ngi jéggalu ah waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp ah xam nga yéen bu ngeen ñu seet see war ngeen ñu seet seetsi bu ngeen ñu seetsiwul war ngeen ñu seetsi dëgg la di kontan nag di wax ni xale yi ubbi nañ école ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu am dooley poos nan jàppale ñi amul dooley poos parce que ku ne xam na ni fourniture yi seer na. daa métti gouvernement bi dimbali ñu ndax ku ne xam na ni dund gi seer na borom kër yi nga xamante ni ñoo luye nit ñi. Mm-hmm. nan jàpp ni ñoom ñoo luye nit ñi mais nañ jéem a góorlu mm-hmm. tey dawal ci yërmande. Mm-hmm. parce que nag teg nan ñi nga xamante ni ñoo leen lu ñoo leen luye. fi yàlla tegul di ñaanal Sénégal yëpp jàmm ku ne xam ne ni yéen ma fekk studio bu la ah studio nga xamante ni fi lay wàlli di génnee affaire yi ngeen i dégg muy neex yëpp mm-hmm. ah di gërëmaat encore une fois sëñ Cissé mu sëñ Babacar Sy di nuyu di siyaare soldaaru Bamba mm-hmm. hmm, soldaaru Bamba mi nga xamante ni moom yàlla dogal mu am cofeel ci man ma am cofeel ci moom ak sëñ Cissé mu sëñ Babacar Sy di leen mm-hmm. gërëm encore une fois waaw mm-hmm. aa ah, ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a doon suivre fii ci People 221 ñu amoon mbégte dalal ko mu di Ndiaye Rambo euh, ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf